tey kay maa bi suma bos la bii bii kay suma bos la. waaw lii euh, courant la na Kaspa. Euh, bi nga xamee ne amuloo Kaspa bu tey lu tax nga naan ma ñëw seetaan see ko sa kër. defal ndànk. maa ne defuma ndànk bi dafa important torop ci man te dama koy seetaani de. man mii sax suma kër laa dem seetaani ko. waaw waaw benn njëkkaay dugalal ma suma Kaspa bi yow. yow nii lan la nii. Qcell dafa indi lu ees. Ah. lu ñoo wax Q power ak Q power mun ngaa recharge sa Kaspa wa waaye léegi su ma am su ma kenn def loo soxla rek mooy amal sa QCell line soo ko amee ba pare waaw nga registré si sa mita bi waaw mun nga see registré bi ñaari mita waaw So registré sa mita gi ba pare dangaa xayma ñaata nga bugg a jënda nga yónnee ko si tri tri tri dégg nga su fekkee ne nag power scratch card bi nga amee dangaa xoos pin bi nga yónnee ko ñu yónnee la sa code nga loot ko am sa cash power sa lampa taal sa télé taal sa kër taal. <laughs> xam nga kon gaawal nga dem dugal yi dugalal nekk si gaaw. waaw li ma di toog de toog de xam nga nag li ma di wax. kiwsel daal moo di bakkan ku ko ñàkk dootul ñandu waaye kiwsel moo di bakkan ku ko ñàkk dootul ñandu. QCell's Q Football is the easiest way to get up-to-the-minute updates of your favourite football team in league or cup competitions. Q Football automatically sends real-time information on goals and results and much more to your mobile wherever you are. Just send your team's name by SMS to 411 and get live updates on goals and scores for only $1. Send your team's name to 511 to get one month's worth of Q Football updates for only $10. Q Football. Follow your heroes. For more information, call 111. QCell, Single Bus, the Gambia's quality network. nga ca yoon de suba ak jàmm. comme li ma la doon wax. Ndijaay waagaan baal waxi dem gi. wallaay moom kay bàyyi rek ma dem. ma Ndijaay waagaan yow loolu la fi naqari mbaa ma laa def loolu naqari nga dem ko nëbbu. moom gis nga jaar bi dëkk moom. foog ñu amante lu leen naqari waaye eh, jégal naa la lépp loo ma def ma ne jégal ma lépp lu ma la def. waaye bu soobee yàlla suba damay dem léegi naka yére yi pare nga man kenn ko yëpp def naa ko waaye man daa neexu ba neexu waaye nijaay waagaan man daa dem bi gën a lu ma ah déet bàyyi ma dem rek bàyyi ma dem rek nijaay waagaan te nga jékki comme maa ngi yow fi ne su ma nijaay àndoon dikki te su ma nijaay nekku fi mu ngi nga a dem ginnaaw mënoo jékki rek xam nga yéen bi ngeen ñëw ñu ñëpp ñoo ànd la waaye am naa fi ay attaques yi wax dëggee la dew ma dëkk ba tey ñoom bu yàggee dafay nuru leneen léegi bàyyi rek ma dem te comme wax naa leen damay dem bàyyi rek ma dem waaye nijaay baa nga def ma ne la naqari nga dama ko nëbbu déedéet defoo ma dara it ndax ñaar ñu nekk sax foog ku nekk tooñ sa morom waaye su ma la tooñee baal ma tey baal naa la ndax waa dëggee la defal nga ma nga ju nek lepp tok nga ma lek ron nga ma na fotel nga ma suma yére xiifuma maru ma wax tege la gërem na la sant na la tay di nga am lu baax de sa sey bi di nga ci am lu baax ndax lu nek dañ nga ko sa jëkkër yi boo ma gënaaw yalla sa jëkkër tax lu baax rek ngay bi lay lu baax rek ngay mo mala ko su dem rek ma dem rek balaas yaa ngi nii. waaw ma ngeen di ma bu ma jooy la ma weesal. ah di bu ma jooy la boo jooy damay ma jooy la waay. ñeenti addu ñeenti fan. ma jooy ma jooy la jàmm ak salaam yal na fi wut jàmm salaam yal na fi wut yal salaam rek moo fi wut alors waaw waaw man waaw waaw waaw teel ma benn place waaw maa ngi nii di doog a génn ama ah, na ngeen maa ngi doog a génn nii waaw ma ne wax ko sa nijaay mbay rek ne ko suma nijaay waaga na ngi ñëw wax ko sa baay mbay waaw waaw waaw waaw baax man tellement nga ca yoon ba. dere na xar yu ma xel. bilay dëgg la waaye xel ma del na ca njaboot ga. bilay ma di dinaa leen nam dinaa leen nam ma di de. waay waay dinaa leen nam suma waay ju la waaye nag garaawul yéen da ngeen baax. waaye sax waa ji yéen dinaa leen nam bilay dinaa leen nam ma di waay waay waay man yow dama doon naw tax yéen a ngi doon jooy baal jooy baal jooy baal jooy. bilaay da ngaa baax saa waay. yàlla baax dinañu ko de. kii ku baax la nii. waaw te yàlla fi jàmm wuutu. waaw kay te mooy waaw kay. baax na waaw kay nañu ko dégg. waaw kay yàlla fi jàmm wuutu. waaw kay. QCell's 4G internet service is the Gambia's fastest and cheapest 4G fixed wireless internet. With QCell's 4G, you can access the internet at unbeatable speeds on your laptop or desktop computer. You can also use your mobile or tablet to browse the internet via Wi-Fi. QCell's 4G internet can keep you connected either in your home or in your office. For a limited time, get 50% off regular equipment and 100% off corporate equipment, as well as free installation and free QCell credit. For more information, call 333-3222 or customer care on 111. You can also visit www.qcell.gm. QCell 4G Internet. Fast, affordable, and reliable. QCell. Sunibus. The Gambia's quality network. story of three young ladies who were born and bred in the same neighborhood, but their desire for life varies. It all started after Janke, who fell in love with a boy in the village. The Okay, can you please give me the